Mm. citoyen bi mën a jóg këram mën a daagu mën a liggéey mën a jëndi ñibbiwaat këram en toute sécurité waaye itam ñi toj kër yi par guddi itam ñu jàppale leen si baax parce que itam gendarmerie ak police foofu lañ leen di war a gën a mën a xaar. très bien ñu wax ci leneen Abdoulaye Mbow muy lu jëm ci wàllu njàng meek euh, njàngale mi addu ci alxames gile ni ki tey la ñu daal di démarrer euh, baccalauréat technique bi at wile daal dinañuy wàññi lu toll ci ñetti junni ak euh, juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay candidat ñoom ñoo bindu jëriñ ñu dénk wàllu formation professionnelle euh, daa dinay euh, amal ak tukkib nemeeku euh, ci centre lycée technique Maurice Delafosse ak collège saint am na mbégte lool ci lim gi ni mu yokkoo ci candidat yi rawatina baccalauréat technique boobee Tidiane yi commencé nañu intéressé ci enseignement technique bi ki ko xamle mooy jëwriñ bi yor wàllum enseignement technique et professionnel ginnaaw visite bu mu doon amal ci yenn centre d' examen yi. ñu visité successivement lycée commercial de la Fosse lycée technique industriel de la Fosse ak fii ñu nekk nii mooy cours euh, Saint-Michel collège Saint-Michel de Dakar fi nga xam nii am nañ fii ay xale yoo xam ni ñu ngi def baccalauréat technique. moo mën a rafetlu rek euh, gëdd goog nga xam ni guvernement Sénégal jox na ko enseignement technique ak formation professionnelle moo tax candidat yokk yokk na waaye ñuy def suñu kem kattan aussi pour que mu gën a yokk parce que suñu économie Sénégal soxla na ay ndaw yoo xam ni am nañ am nañu am nañu métier. mattukaay yëpp jël nañu ko ngir élèves yi ak surveillant sàmmantoo ak tegtalu kër dëkk. mooy rafetul li ma gis ci fi ma jaar yëpp nga gis ni li ñuy raxasukaayu loxo yi mi ngi fi ba léegi xale yi aussi am nañ seen masque takk ko. ren 3737 candidats la ñu am ñu tas leen ci ñaari fukk ak benn centre d' examen. ñu des ba léegi ci euh, njàng beek njàngale mi ak euh, génnuk euh, bu SAEMS niki tey ci suba ñoom nag ñu ngi sàkku waa syndicat autonome des enseignants moyens secondaires ci inspecteur d' académie yi nga xam ne seen i gox dafa